du am itam liqaam waaye dañuy daal di taxawal rek euh, daal di def kàbbar yi juróom ñaari kàbbar ci euh, rakkaab bu njëkk bi juróom benn kabar ci rakkaab ñaareel bi bu ko defee ñaari rakka lay doon waaye xutba bi mooy mott lu julli gi suñu noppee xutba boobu la ñuy jàng bu ko defee doog a teewlu ndénkaan yi nga xamante ni moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha fas yéene dénk mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoon mi ngi noonu agsi na ba toog ci jataay bi dend ak Serigne Abo Mbacke Serigne Abul Baraka mi nga xamante ni moo feggoog moom ci wetu càmmoñ gi Serigne Abul Baraka mi nga xam ne mooy xalifam Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke waaw waaye Serigne Bass Abdoul Khadir itam euh, dar ko dend ak moom ci wetu ndeyjoor gi ñoo ñu war a taxawal julli gi euh, Serigne Fallou moom Cheikh Abdoul Khadir moom itam léegi tey mu dugg si ndax da doon xaar rek Serigne bi agsi euh, joxe ndigal imaam war dugg si xam nga imaam bu duggee rek dañoo war a taxawal moo tax faaw sëñ moo ñëw ba toog imaam doog a si bu duggee rek war a taxawal julli gi mi ngi noonu euh, suñu mbokk caméraman yi ak suñu mbokk photographe yi ñu ngi noonu di jël ay photo ndax loolu itam archive la euh, tey photo euh, photo ñu mbind di dese noonu la image di desee tey ñu ngi gis image yi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Fadal doon jiitee fii ci jumaay Touba 7 juin 1963 ba léegi image yooyu mi ngi fi image yi Cheikh Abdoul Khadir Mbacké daan jiite fii image yi Cheikh Mourtada daan jiite fii Serigne Abibou Mbacke image yi mu daan jiitee fii mboolem imam yi fi jaar mboolem seen i xutba tey mi ngi des moo tax faw ñu may suñu mbokku caméraman yi ak photographe yi ñu jël ay image ndax loolu bu ëllëgee dana doon archive dana doon itam lu ñuy fàttaliku ci barab bi teewaayu Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci barkeb Cheikhul Khadim hmm, sant nañ ko bu baax a baax gërëm ko ci dugal gi nga xamante ni dugal na ko loxoom ci liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma kon xam naa euh, ñu jekkal gën a jekkal jataay yi rek bu ko defee mi ngi ñu ngi noonu di euh, di di soññee ngir ñu mën a jekkal jataay ngir imam mën a dugg si bu ko defee ñu mën a euh, taxawal ñu mën a taxawal julli gi waaw xam naa bu bu bu leen tàqalikoo ak ñun bu ñu sëlma rek incha allah danañ continuer interview yi nga xamante ni moom lañ doon def ndax faawuñu euh, nag euh, dajeek sëriñ Afia mi nga xamante ni mooy njiit daara Muxaddamatul Xidma hmm, jàngat itam xutba bi nga xamante ni moom la euh, sa imaam bëgg a xutba waaye itam faaw itam dénkaane yi nga xamante ni moom la sëriñ bi dénkaane faaw itam ñu jàngat ko xool yéen bind lañ ci mën a lañ ci mën a lañ ci mën a tiire macha allah gis nga jotaay bi rafet na noonu nit ñëpp ànd nañu ak yar ak teggin ngir taxaw waajal waajal julli gi hmm, ngi noonu sëriñ bi mi ngi noonu toog macha allah euh, sol lu weex tàll waaye tam nag teg ci manta boo xamante ni ku ko gis rek sa xel dana dem ci euh, waajuram bu baax a sëriñ Basiru Mbakke euh, mi nga xamante ni ibnu xaadimu rasul waaye dana dem ci magam ju baax ja mi nga xam tey moom moo toogee jotaayam ci daarul minan muy sëriñ Moustapha Basiru Mbakke waaye mi ngi feggoo ak ci càmmoñam sëriñ Abul Baraka mi nga xam ne mooy xalifu kër Cheikh Mouhamadul Fadal waaye itam feggoo itam ak sëriñ Bas Abdul Xaadir mi nga xamante ni moo yor kàddoom di porte parole yoonu murit kon xam naa ci ay minutes yu néew rek ndax euh, euh, fukki waxtu yu tegal fanweeri minutes la ñu waxoon fukki waxtu yu tegal fanweeri minutes mel na ne fi mu ne nii euh, jege na kon duggug imaam rek la ñuy xaar Serigne Fallou Mbacké moom Cheikh Abdoul Khadir mi nga xamante ni moo war a jiite julli gi moom itam bu ñu nee kan mooy jiite ca pencum Touba ma ca jumaay Touba ja ca jullig it ga ñu ne Serigne Fallou Mbacké moom Cheikh Abdoul Khadir loolu kenn du ne lu tax ndax fii la way juram nekkoon mm, Cheikh Mouhamadul Fadel samp ko muy jiite julli yi ajjuma yi waaye itam di jiite julli iid yi feggoo ak euh, magam yu baax ya feggoo ak rakkam yu baax ya euh, yàlla na yàlla yokk yërmande ci ñoom macha allah gis ngeen image bi macha allah bu rafet image boo xam ne ku ko xool euh, sa xel dina dem ci ne nituk yàlla pire mi ngi nii Euh, nit ku dund sunna mi ngi nii waaye nit ku dëdd àddina mi ngi nii koo xam ne tey àddina yëpp daje na ci loxoom ba noppi euh, yëgut ko yëgu ko mi ngi nii euh, koo xam ne xam-xam rek ko ñor koo xam ne yokkuteb lislaam rek ko ñor koo xam ne liggéey bi seriñ Tuubaa bii bañ a laal suuf rek moo ko ñor mi ngi nii toog Cheikh Mouhamadul Mountakha di alxalifatul am di taifatil muridiya waaye sax damay wax ne l'islam bi yëpp la fi nekkal ndax tey Sénégal àgg na foo xam ne tey Cheikh Mouhamadul Mountakha saa yu addoo kuy képp kuy jullit même ku dul jullit kuy citoyen sénégalais rek danga bàyyi xel ci wax ji nga xamante ni moom lay wax ndax jàmm lay wax luy boole nit ñi lay wax luy yokk réew mi lay wax luy indi stabilité ci biir réew mi lay wax moo tax waa réew mi yëpp bàyyi nañ ko xel loolu nag Serigne Touba la. loolu nag Serigne Touba la Serigne ci boppam moo ñaanoon ne tukkeem bii bu ca jógee na doon jaw fal faraalil wara na doon njëriñul mboolem mbindeef yi kon nag euh, liikun bikun sarmadan wajaal masiri yasa jaw fal faraalil wara mislal maarini kon loolu bu Cheikh mun Mountakha ñëwee jëmmal loolu symboliser loolu euh, euh, ba réew mépp di ko bàyyi xel loolu dañ naan jërëjëf Serigne Touba lépp liggéey bi Serigne Touba la mi ngi noonu gis ngeen organisation bi macha allah am na solo biir penc mi yëpp doo gis benn jigéen boo xamante ni nekk na fi jigéen ñëpp ñu nga ca sow ba sàppi jub hmm, euh, ànd ko ak force de sécurité yi force de l'ordre police ak gendarmerie ñoom ñëpp ñu ànd ko ak ñoom effacé parking bi yëpp waaye itam sonorisation bi dégg ngeen ko foo toll di dégg julli gi foo toll di gis image yi macha allah muy lu am solo loo xamante ni macha allah am na solo waaye itam gis ngeen sappe sos ci ginnaaw euh, njabootu Serigne Touba gi rek ñoo ci ne. Euh, maa ngi gis noonu Serigne Moussa Nawel mi nga xam ne jëriñu Cheikh Mouhamadul Mountakha la mi ngi noonu ci ginnaawam macha allah euh, moom itam ku ku di ku am pëseef koo xamante ni kuy taxawu Serigne bi la moom itam mi ngi noonu waaye itam dandanteeg ak Serigne Fallou Mbacké ñu koy wax Serigne Galas Kaltoom moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moom Cheikh Mouhamadou Mouhamadul Fadal mi nga xamante ni moo fi nekkoon xalif général de Mouride yàlla na euh, yokk leeram te tas ci barkeem moom itam mi ngi noonu di koo xamante ni moom itam ci njabootuk sëriñ bi la bokk kuy bàyyi xel yëf yi la bokk maa ngi seen sëriñ Fallou Bousso al imam ma nga na la di ñëw gis force de sécurité yi ngi noonu doon ko jëli waaw sëñ Fallou Mbacké ay imam moom Cheikh Abdoul Khadir mu war a jiite julli gi sëñ mi ngi noonu di ñëw mm, ni ma rek euh, ku fonk waxtu la euh, fukki waxtu ak genn wàll lañ waxoon dix heures